لنا ما نسينا وتعلمنا ما جهلنا وتثبت ما علمتنا وما ذكرتنا في قلوبنا إنك أنت العليم الحكيم ñu ngi fas yéene leeral fii comme ni ñu ko waxe woon ci bande bu njëkk bi biographie mawlaana wa cheikhina wa sanadina taajil aarifina wa imaamil muqarrabin mawlaana abil abbaasi ahmad attijaani alsharif radiallahu taala anhu sidina cheikh moomu nga xam ne moo sos ab tariqa tijaaniya fa tabaarakallahu ci ndigal lu bàyyi ko ci maamam yonent bi sallallahu alayhi wa sallama gannaaw ba mu jaaree ci ay jaarin yu baree bari jokkaloog ay sëriñ yu baree bari ba yàlla wan ko maamam mu jox ko ndigal ci sos tariqa bi bàyyi mbooleem awraat yim yoroon ak azkaar yim yoroon waxoon nañ ci ginnaaw ne àgg ci yàlla mënul jàppandi wala mënul yomb mënul nekk mukk illa bi taqayyudi bi adkaari wa awraadi wa tarbiyati mashaayixi turuq al kummal ridwanullahi alayhim ajmain sidina cheikh mi ñu yàlla tal mi ñu yàlla mi ñu yàlla tànnal nag moom moo di sayidi ahmadu tijaani radiallahu anhu di doomu sayidi mahammad di doomu muxtaar di doomu ahmad kooku di doomu muhammad doomu ibnu salim di doomu ibnu abi di abil iid di doomu bën saalum di doomu ahmad al mulaqab bil alawaani di doomu ahmad di doomu ali di doomu abdullah di doomu abbas doomu abdul jabbar doomu idris doomu idris di doomu isxaaqa kooku di doomu ali ibnu zeyn al abidin ibnu ahmad ibnu muhammad annafsi zakiya ibnu abdillah ibnu alxasan almuthanna ibnu alxasan alsibt ibnu ali ibni abi taalibin karama allahu wajha ak sunu doomu sang muy sittuna fatimatu zahra sayidatu nisaai ahlil janna alayha salaam di doomu xayril xalqi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sayidina cheikh noonu la ko yàlla boole ci assilsila nabawiya ay addawxa nabawiya sharifa muy sharif xaqan di doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaayam mi ngi tuddoon sittuna aisha sittuna aïcha moomu way juram mi ngi tudd abu abdillah sayidi mahmoud ibnu sanusi atijani almadawi bi maana mi ngi bokkoon ci qabila boobu nga xam ne ci la ñu askane atijani almadawi ma nga dëkkoon ca aynu madi dëkk bu nekk la ca algérie way juram wu góor moo di abu abdillah sayidi mahammad ibnul muxtaar nekkoon boroom xam-xam bu mag di ko sàmm di ko topp sunna di ko mën a tudd yàlla daan jàngale xadiis ak tafsir këram dafa amoon néeg boo xam ne tudd yàlla rekk la ko jegle loon kenn daaw fa dugg ku dul moom yàlla mayoon na ko ba nga xam ne rawxaan yi daanañu ñëw ci moom sax naan ko waxal loo bëgg ñu defal la ko mu ne leen utrukuuni laa tadxulu bayni wa bayna allah laa xaajata lii bi taalluqi bi siwa allah génn leen sama digganteeg sama borom xaju leen ci xaw ma benn soxla ci aju ci keneen ku bokkul ak yàlla kooku mooy woy juram ñoom ñaar ñëpp ñi ngi gaañu ci benn taawun benn mbas mu amoon année 1166 ci gàddaay gi ñu bokk leen denc ci benn dëkk maamam yëpp fa tabaarakallaahu boo leen dee seet ay boroomi xam-xam lañu ay jaamukatu yàlla lañu ñu ragal yàlla lañu ñu dëddu àdduna lañu ñoom ñépp boroomi cër lañu woon fa tabarakallahu kaanu min ashaabil wilaayati al kubra waaye nag seen wilaaya googu dañ ko daan nëbb daawuñu ko feeñal kooku moo di ñooñu ñoo di ay woy juram seydina cheikh radiallahu anhu mi ngi juddoo ci dëkk bu ñuy wax aynu madi ci 1150 ci gàddaay gi bi gàddaayu yonent bi solo bi yonent bi gàddaayee ba mu am junniy at ak téeméer ak juróom fukk ci la seydina cheikh gane àdduna dëppoog atum 1730 ci gaañuk yonent yàlla isa cosaanam benn qabila bu ñuy wax abda bil maghrib min al ashraf ci la bokk gaañoo ca Maroc ñu koy wax al maghribul aqsa ci 1230 bi gàddaay gi amee junniy at ak ñaar téeméer ak fanweer tolloog 1850 ci milaad yi daanaka kon manes naa wax ne sidina cheikh dund na juróom-ñetti fukki at fa tabaarakallah teel a wattu alquran bi mu amee juróom-ñaari at ci dundam mokkal ko nag ci riwaayatu al imam nafia bi riwaayati warsh bi loolu weesoo mu ku teel a jàng xam-xam la xam-xamu zahir yàlla mayoon ko ci lool cër may ko ci lool fa tabaarakallah ba nga xam ne mbooleem xeeti xam-xam yi la ca lëntoon ku yàlla mayoon ci mu teel koo dégg la mën koo leerale fa tabarakallah nitu jamonoom nawoon nañ ko lool ñépp seedeel nañ ko ak jiitu ak yëkkatiku àlliwa fa tabarakallah ku teel a ubbee la itam ci wàllu xam-xam daan jàngale mbooleem xeeti xam-xam yépp bi ko yàlla mayee nag mu wattu xam-xam yooyu xam-xamu zahir xam-xamu fiq xam-xamu xadiis xam-xamu usulul fiq xam-xamu tafsir yooyu yépp fa tabarakallahu mu wattu ko itteem dafa daal di yëkkatiku nag ci topp yoon yi nga xam ne mooy yoonu gaa yi yàlla yi moo tax boroom mun yene summa artaqat himmatuhu laliya ila ittibaai saadati suufiya fa jaala fi talabi ahlillahi aadatu kulli aabidin awaahi wa umruhu ixda wa ishruuna sana lillahi darru ummihi ma ahsana fa tabaarakallahu ku teel a topp yoonu nitu yàlla yi ba mu màggee ba am xam-xam yooyu itteem dafa daal di yëkkatiku ci topp yoonu sufiyanke yi commencé nag wër di jokkaloog nitu yàlla yi te loolu mooy aaday bépp jaamukatu yàlla bu baax booba mi ngi fekk ci wàllu at mi ngi am ñaar fukki at ak benn fa tabaarakallah moo tax ba bi mu tàmbalee tukki dal di jëm ci Faas ci Maroc bokk na ci sëriñ yi mu dajeel foofu benn sëriñ bu mag bu ñuy wax Abu Muhammad Mawlana at-Tayyib Ibnul Qutb Sayyidi Muhammad Ibnul Qutb Mawlana Abdullahi Sharif nga xam ne ku yàlla mayoon xam-xam la nekkoon ci benn zaawiye bu mag ca Wazaan bokk na ci boroom xam-xam yi mu taseel ba tey ci bi mu bàyyi ko Algérie ñëw Maroc ci yoonam wu njëkk ku ñuy wax Ahmad As-Saqali di woon boroom xam-xam bu mag bu ñépp xam ca Faas ak yeneeni boroom xam-xam ku mel ne Muhammad Ibnul Hasan Al-Wanjali nga xam ne bi mu taseeg moom lu jiitu muy wax ak sidina cheikh dara nee na ko la budda an tudrika maqaam al qutb al kabir mawlana abil hasan alchaabili radiallahu anhu inchaa allahu day da nga mas a joti maqaama bi nga xam ne qutb bu mag boobu ñu koy wax abul hasan alchaabili tooge na ko da nga ko jot inchaa allah sidi tayib boobu njëkkoon a wax bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ko njëkk a jox ñoo ko njëkk a sax yoonu nitu yàlla yi ba noppi jox ko wirdam jox ko ndigal itam ci mu koy def talqiin waaye sidina cheikh nanguwu ko woon a def talqiin kenn ndax booba fekk na itteem ëpp na loolu bëgg na lu gën a kawe li góor gi yore bokk na ci ñi nga xamante ne ba tey daje na ak ñoom ku ñuy wax abdullahi ibnu sayidi al arbi ibnu sayidi ahmad ibnu sayidi muhammad ibnu abdillah bokk ci doomi maan al andalusi sidna cheikh radiallahu anhu daje naag moom ñu bokk waxtaan ci ay mbir ba ko sidna cheikh tàggoo bëgg a dem bokk na ca lañ tàqalikoo mu ne ko allahu yaa xudu bi yadik yàlla dana jàpp dana la jàpp incha allah yàlla du la bàyyi mukk ñetti yoon bokk na ci kilifa yim taseel abul abbas sayyidi ahmad at tawash mu nekkoon taasa sidina cheikh radiallahu anhu daje na ak moom mu jox ko ay dikr ne ko nag ilzamil xalwata wal waxda wa dikra wa sab wa sabra xata yaftax allah na nga taqoo xalwa ak di wéet di tudd yàlla ak di muñ ba yàlla di la ubbil waaye mu mel ne sidna cheikh ba léegi loolu doyu ko fa tabarakallahu ak ñeneen ci ay boroomi xam-xam yoo xam ne ci ziyaaraam bi mu njëkk a def faas bi xelam nekkee ci sóobu ci yoonu nitu yàlla yi daje naa ak ñoom ci yoon woowu bokk na ci nitu yàlla yi nga xam ne daje naa wala boog jël na seen tariqa te booba sax fekk na ñooñu dundatuñu jëloon na ab tariqa al qaadiriya ci ñi nga xam ne ñoo ko doon joxe ca jamono boobu jëloon na ba tey ab tariqa nasriya jële ko ci ku ñuy wax sayidi muhammad ibni abdillah jëloon na ba tey tariqa al aarifi billah sayidi ahmad al habib assijil masi assiddiqi tariqa yooyu yëpp seeni boroom fekkoon nañu faatu waaye mu jël ko ci ñi nga xam ne ñoo ci daan joxe ndigal ca Fass kilifa gu mag googu ñu mujj a tudd te moo di sayidi ahmed alhabib assijil maasi sidana cheikh gis na ko ci nelaw gént gis ko kilifa googu jox ko aw tur mu di ko jëfandikoo waaye jëfandikoo ba yàggul mu dem ba ci yàgg mu xemmem lu ëpp loolu tax mu bàyyi ko loolu borom mu niye tudd na ko ci téeréem bi fa kaana min jumlati man ataahu min awliyaai asrihi al awwa al awwaahu sayiduna tayibu xilfatu lfudul wa farisu lxalbati ahmadu saqal waaw ñooñu wa gayru haadayni ka min ahli lminan ka sayidi muhammadin najli lxasan وهو الذي قال لهذا الكامل تدرك لا بد مقام الشاذلي فتبارك الله نيت يالا يوي لا نجيك تاسل ci yoonam ginaaw bi nag xelam dellu ci ñibbi fa mu bàyyi ko woon delluwaat ca saxara ba ndax kilifa gu mag googu alwanjali defoon na ko ko ishaara ne ko yow sa mbir sa fatxu laa yakunu illa fi saxra moo tax ba sidina cheikh fa tabarakallahu waññeeku bi mu doxee yoonam bu njëkk ba noppi fas yéene ñibbi bi mu dikkee ba ci saxaraa bi foofu fa la toog def ko muy wàccuwaayam def ko muy këram def ko muy jaamukaayu yàllaam di fa jàngale di fa jaamu yàlla di fa jëriñ nit ñi ba toog fa lu war a mat juróomi at ci biir juróomi at yooyu nag ziyaara ji na ay numaat bi bi at yooyu weesoo nag mu ñëw dëkk bu ñuy wax aljadaar fa siyee na faa toog di fa jàngale xadiis di fa jàngale ilmul tafsir di fa def ijtihaad di farlu ci topp yàlla ba yàlla may ko fa lam ko fa may ci ay xeeti ubbiku yoo xam ne nit ñépp nag commencé ñëw ci moom ay mbooloo ak ay par kenn nit ñépp di ñëw di barkeelu ci moom buñ ñëwee muy bañ ak di leen tere ndax booba amagul ndigal ci jàppe boppam sëriñ ku ñëw daal mën na lañ kulluna waxidun fi l ixtiyaaj ila ma yaxsulu bihi l intifaa ñun ñëpp daal ñoo bokk wàccuwaay ci jéem a liggéeyal sunu bopp loo xam ne bii njariñ dana ci bàyyi ko fala budda li daawal machixa fala maana idan li daawal machixati woote ak cëriñ daal xaju fi fa tabaraka allahu ba mu toogee ci dëkk boobu ba yàlla di ko fa ubbil muy gën di yéeg ay maqaama ba xelam nag nekk ci aj makka ak ziyaara ji maamam sallallahu alayhi wa sallam mu daldi bàyyikoo jadaar boobu ñu waxoon dëkk la bu nekk ca tilimsaan fa la bàyyikoo nag fas yéene aji néegu yàlla bu màgg ba ba muy dem itam tuunus la jaar ba mu demee am na fa at ak suusa xol ya fa dëgëroon yépp diir boobu ma mu fa sax fa tabarakallahu nooyal na ko itte yi nga xam ne bii dafa demoon ba suufe yépp mu yëkkatiku ba seeni borom jubluwaat ci yàlla daje na fa ak benn borom xam-xam bu mag di waliyu nga xam ne bii moo doon xutbu jamono ca réew mooma fa tabarakallahu amul woon ndigal ci taseeg moom ndax dafa dajeeg ci kenn koo xam ne kii taalubeem la ñu koy wax sayidi abdu samad mu doon taalube góor googu nekk ci suufu wilaayaam di bokk ci ñeent ñi nga xam ne ñoom rek ñoo amoon ndigal ci gis kilifa googu bisu ajjuma bu nekk ak bisu altine guddig ajjuma gu nekk ak guddig altine fa tabarakallahu mu gisanteeg moom yónni ko ca kilifa ga kilifa googu bégal ko ne ko na nga ko xamal ne ko huwa mahbubun inda allah ku ñu sopp la fa sun borom tabaraka wa taala kon boog ci at mi nga xam ne ci la jógee tilimsaan ci la dugg tuunus daje faak comme niñ ko waxee nitu yàlla bu mag boobu ñuy wax sayidi abdou samad nga xam ne bii mi ngi nekkoon ci wilaaya xut bu zamaan boobu ñu wax fa tabarakallah kooku la fa njëkk a taseel kooku bëggal ko ne ko na nga ko wax ne ko huwa mahbubun inda allah ci diir bi mu nekk tunus e daana fa jàng di fa jàngale alxikam al ataiya fa tabarakallah ka nga xam ne moo fa nekkoon kilifa réew ma ci wàllu jamono yónnee ci moom ne ko daal dama bëgg nga toog tunus di fi jàngale xam-xam di fi toppatoo mbirum diine joxe ndigal ci ñu wutal ko kër itam ñu jox ko masjidu zaytuna wutal ko sold waaye ba leetar ba ñëwee si dina cheikh jàng leetar ba daf ko téye daal di xëy rek départ tukki noonu la génne Tuunus dem Égypte noonu la génne Tuunus dem Égypte e waaye nag lu jiitu muy dem foofu itam daje na fa kilifa gu mag gu ñuy wax abu abdillah sayidi muhammad ibnu abdurahman al azhari wax nañu sax ne fa tabaarakallahu demoon na ba jël ci moom ab tariqa alxal alxalutiya ndax moom mi ngi jële ci sëriñ bu ñuy wax alxafnaawi noonu kon la bàyyi ko Tuunus dem Égypte ba mu demee nag fa la dajeeg nitu yàlla bu mag ñu koy wax mahmoud al kurdi fa tabaarakallahu mu dajeeg moom ba mu ko gisee rek mu ne ko anta mahbubun inda allahi fi dunya wal axira yow daal ku ñu sopp nga fa yàlla ci àdduna ak ci àllaaxira si dina cheikh ne ko waaw mbir moomu nga ma bégale foo ko jële min ayna laka dalik mu ne ko min allah si dina cheikh ne ko fa tabaarakallahu man daal ne ko foo ko jële mu ne ko ci suñu borom tabaraka wa taala mu ne ko itam moom kilifa ga mu ne ko li ma lay xamal daal na la wóor ne yow yàlla dana la may cër boo xam ne moo gën a màgg alqutbaaniya waaw ndax dafa mel ne ba ñu tasee la nga xam ne moom la ko njëkk a wax moo di gis naa la ca Tuunus ci nelaw nga wax ma ne ma yow përëm nga sa jëmmu jëmmi përëm la toogi mën na la waaw nga ne ma nag dama bëgg nga soppil ma sama përëm bii mu nekk wurus mu ne ko waaw mahmoud al kurdi wax sidina cheikh ne ko ni nga ko gisee noonu la amee ba mu fa toogee ay fan mu ne ko nag lan mooy sa matlab lan mooy sa càkkutéef mu ne ko sidina cheikh ne ko man li may sàkku moo di al qutbaniyatul uzma mahmoud al kurdi radiallahu anhuma ne ko am nga lu ëpp loolu sidina cheikh ne ko yaa ko warlu mu ne ko waaw fa tabaarakallahu mu net li ko itam li nga xam ne moo am ci biir tukkeem ak kilifa yi mu dajeel ku mel ne sëriñu sëriñam ak kooku nga xam ne moo doon al Mustafa al Bikri as Siddiqi radiallahu anhum ajmain ba mu fa toogee nag ab diir foofu ca Égypte nekk faak sëriñam boobu mu daal di wéy jàll Makka ngir mën a aj ziyaara maamam sallallahu alayhi wa sallam cheikh mahmoud al kurdi tàggoog moom ñaanal ko yàlla ne ko incha allahu sa tukki dem ak ñëw doo ci am benn jaaxle niki noonu la sayidina cheikh ak see al ma makkatal mukarrama ziyaara ko maamam sallallahu alayhi wa sallam moo tax borom mun yene wajaa fi shawaalin alkaabata fi sanati sabcin duuna ma tawaqufi wa kaana id daaka min alkibaari بعض بها وكان ذا أسرار فانتفع الشيخ به مكاتبة ولم تقع بينهما مخاطبة فأخبر الشيخ بموته فقال أنت الذي ترث ما لي من كمال فكان ما قاله وبشره بما الزبيبي بما الزبيبي به قد أخبره بمؤكسي فوفو fa tabarakallahu mi ngi nekkoon ci shawal atum 1187 te mooy atum ñaareel mi nga xam ne ci la génne limsaan ba mu dikkee màkka te seen fa ku ñuy wax abul abbas sayidu sayidi ahmad ibnu abdillahi al hindi fa tabarakallahu mu nekkoon al mu dëkkoon makka al mukarrama fa tabarakallahu yàlla def am ay murasalaat yu dox seen diggante ci wàllu ay asraar ak ay xikam ak ay anwaar waaye gisante wuñu ginnaaw bi mu ajee ba noppi nag fa tabarakallahu sëriñam boobu itam gaañu muy ahmad ibn abdullah al hindi boobu ñu waxoon sidina cheikh nag fas yéene ziyaare si maamam ci almadina al murawara foofu nga xam ne moo di place bi nga xam ne fala leer yi jolli ko fala leer yi yépp di bàyyi ko jëm si ci mbindaa foon yi ba mu fa agsee nag mu ne alhamdulillahi mi nga xam ne matal na sama yéene ca ma ñëw ba ziyaara sama maam sallallahu alayhi wa sallam mu mel na daal dafay dëppoog li waa ji wax ne yaa maraban laysa lii fi gayrihi arabu ilayka alat taqassi wantahat talabu mel na bayit boobu daal dafa dëppoog li nga xam ne moo doon bëgg-bëggam fa tabarakallah ginnaaw bi mu ziyaaree maamam sallallahu alayhi wa sallam mu ne man daal li ma fas yéene nag moo di dellu fa ma bàyyi koo woon daal di ñëwaat jaar keer booba nag mi ngi namm sëriñam bi nga xam ne moo di Mahmoud al Kurdi ndax nit ku baax la woon boroom xam-xam bu yàlla mayoon la ba mu dikkee kilifa gi ganale ko kontaan ci moom lool dalal ko fa tabarakallahu ne ko nag dama bëgg nga toog fi ab diir mboolem xeeti xam-xam yi ñu fiy jàngale nga di ko jàngale fa tabarakallahu la lëntoon ci xam-xam yépp mu di ko leeral boroom xam-xame Égypte yépp di ñëw di jariñu ci moom di naan ci ndoxam mu tey mi fa tabarakallah ba mu fa amee ab diir nag mu dogu ci fas yéene tukki dellu si Maghrib lu jiitu muy ñëw nag sëriñam boobu di Mahmoud al Kurdi joxoon na ko tariqaam jox ko ci ndigal waaye nag sidina cheikh radiallahu anhu nanguwul bi mu tàggoog moom nag ci la agsi Tilimsaan muy 1188 foofa nag la ñëwee toog Tilimsaan ab diir bi mu ñëwaat bi mu ñëwee ba Tilimsaan nag foofu la dajeeg boroom xam-xam bu mag boobu di faqih bu mag ñu koy wax abu abdillahi sayidi muhammad ibnu muhammad ibnu almishri alxasani alsaaixi alsibaaci radiallahu anhu fa tabarakallahu bi mu dikkee sidina cheikh jox ko tariqa bi mu yoroon jox ko ci ay asraar jox ko adkaar yi ci nekkoon mosul dañ di ànd ak sidina cheikh radiallahu anhu ba yàlla def mu gaañu 1224 ci gàddaay gi moom moo taalif kitaab boobu ñuy wax aljaami li maftaraqa min al ulum moo taalif itam kitaabu nusrati shurafa fi raddi ala ahli aljafa sayidina cheikh fonkoon na ko ba nga xam ne moom la defoon sax mu nekk imaamam di ko jiite ci mboolem julli juróom ndax booba sayidina cheikh radiallahu anhu amagul ndigal ci nekk imaam xanaa lu dul mu nekk ci biir këram di jiite waa këram ak njabootam ba ci 1208 ci lay door a am ndigal ci nag mën a nekk imaam fa tabarakallahu loolu yépp mu bàyyi ko ci maamam sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi mu nekkee ci tilimsaan ba am fa juróom ñetti at xelam nag nekkaat ci ziyaara ji faas ziyaara ji maamam boobu di Mawlana Idris Mawlana Idris fa tabarakallahu nekkoon boroom xam-xam di boroom cër bu mag di sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu fas yéenee ñëw faas nag ci 1191 ba agsi dëkk bu ñuy wax Wajda ci Maroc Wajda ci Maroc fa la taseeg xalifaam bu mag boobu di boroom xam-xam di sayyiduna Ali Harazim Alfasi moom mi nga xam ne jawahirul maani moom la sidina cheikh radiallahu anhu joxoon ndigal ci mu dajale ko kooku cëram la ba ñuy dajee nag xamante wuñu woon fa tabarakallahu sidina cheikh fàttali ko gént goo xam ne moom sidi ali harazim géntoon na ko gént goo xam ne daf doon tegtale ne insha allahu dana dajeeg moom ba yàlla boole ko moom bi ko ko sidina cheikh fàttale mu daal di koy fàttaliku daal ne kon bokk an qad jaalaha rabbi xaqa sama gént googu daal kon yàlla mottali na ko sidina cheikh nag ne ko nag na nga ragal yàlla yaa ngi may sonal te xam ne nag amuloo benn aajo ci lu dul dajeeg man kon bokk na nga sant yàlla ci loolu sidi ali harazim sant ci yàlla lool xam ne nag ki nga xam ne mooy méngoo ay mbiram ki ko yàlla booleel mu war koo defar ci wàllu yàlla mi ngi nii te mooy cheikhuna tijaani sharif radiallahu anhu yàlla def si dina cheikh wéy nag ba ak si faas toog fa ab diir ziyaara mawlana idris fa tabaarakallahu toog fa ab diir nag fa si yéene delluwaat tilimsaan ngam bàyyi ko woon boobu nag bi mu agsee ba foofu war a tàggook Seydi Ali Harazim mu ne ko maa ngi dem ndax man sama mbir du jege fii waaye nag ilzamil ahda wal mahabba xatta yaatiya al fatxu insha allah na nga toog taqoo ak kóllëre gi ak cofeel gi dox suñu diggante ba yàlla di indi ak ubbi insha allah noonu lañ tàggoo mook xaritam boobu di xalifaam muy sayidi ali harazim barada alfasi si dina cheikh nag fas yéena dellu moo tax mu ne wa min tilimsaana nawa intiqaala ila abi shamu ila abi samcuuna walshalaala fi caami sittatin wa tisciina irtaxal canha ilayhima bi ahlihi waxal loolu boroom mun ye moo ko wax moo tax sidina cheikh radiallahu anhu ba mu delloo ba àgg tilimsaan nekk fa nag ab diir nag di tànnloo yàlla pour yàlla man koo may place boo xam ne fa lay toog ba fatxu gi ñëw ñu jox ko ndigal ci mu dem ci abi abu abi samxuun mu toog fa ab diir fa tabarakallahu fekk na booba waxoon nañ ne mi ngi bàyyikoo tilimsaan ci 1196 ñëw ci dëkk boobu ñuy wax Chalala toog fa ab diir ba ci 1199 ci la ñëwee nag abi samxuun foofu ñuy wax xasru abi samxuun nga xam ne boroom xam-xam bu mag boobu ñuy wax abu samxuun moo fa dëkkoon ba tax ñu tudde ko tudde ko pale boobu wala sidina cheikh ñëw ba mu fa dikkee nag foofu la ko fatxu gi ñëwe bàyyi ko ci maamam sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi ajmain kon boog diggante 1196 ci gàddaay gi ba bi muy ñëw abi samxuun ci 1199 ci gàddaay gi foofu nag la ko maamam feeñoo sallallahu alayhi wa sallam moo tax boroom mun ye mu ne wa fataxa allahu bi hada al aami fatxan li cheikhi alkaamili alimaami bi an ra'a bil ayni ayna arrahma yaqadatan fa saara ayna al umma wa qaala da' kulla shuyuuxika wadar ana murabbika wa shaykhuka al abar wa qaala anta waarisi wa xasbi wa waalidi xaqan bi gayri utbi wa kaana fatxu sheykhina di diini bi qasri li saadi abi samghuni loolu la borom mu ne